mais xoolal ci leen lii làmb ji jeex na ñu commencé sànni ay xeer chaise yi ñu commencé di ko toj ñuy sànnante ay xeer policiers yi riposté nañu par tir lacrymogène sànq avant combat bi di jeex amoon na yu mel nii am na ñoo xam dañu jógee ci tribune yi di daanu ñii di sànnante ay xeer ñuy toj ay chaise mais làmb daal moom man xàmmetuma làmb wax dëgg yàlla xàmmetuma làmb bu ñu ne arène nationale ñuy damm chaise yi bu ñu ne Iba Mar ñuy damm chaise yi sànni xeer ci ginnaaw la ñuy nekk xam naa waa Médina bëgguñu woon sax ñu ñëw fi uude yi nekk fii ci wote stade Iba Mar Diop woon sax ñu ñëw fi mais amateurs yi wala bokk ñi di supporters yi làmb du lii làmb sport la fair play dañ lay daan nga nangu nga dem ñibbi ànd ak sa mbër parce que lii moom wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla dafa ñaaw quoi ñun ñii di liggéey sax ci làmb parfois ni dañuy am lu ñu naqari dañuy am lu ñu metti xoolal chaise yi ñu dàmb regardez mois ça ah pour ñu wax sax day metti dañuy takk masque xaar eh. la léegi yàq nañ làmb ji làmb léegi ku ñu daan nga xeex wala nga damm ay chaise mais c'est quoi ces histoires làmb dañ naan làmb noble la pour les nobles mais xeex face à face ñu xeex nga bëre ñu xeex ñu daan la nga xeex ah agression bi mel ni tulleeg màlle mais làmb daal war nañ ko xoolaat li ñu war a assainir ci làmb lii la ñu war a njëkk a ci làmb xool naka la ñuy régler problème bii loolu nag dafay interpeller les lutteurs premièrement la presse interpeller tamit les promoteurs ak ñi nga xam ñoo ñooy les services yi nga xam ñoo yor wàllu kaaraange muy waa police nañ ci xool bu baax a baax a baax a baax a baax a baax ah nañu xool bu baax a baax a baax parce que lii moom day gën a ray làmb quoi ça tue la lutte am na ñu ñuy interpellé am na ñu ñuy interpellé am na ñuy interpellé di wax ak ñoom mais policiers yi ñu ngi naan nañu nañu nañu téye suñu caméra. xam nga làmb liin luñ ci war a régler dafa bëri trop trop trop trop ah dafa dafa bëri mais yàq nañ làmb ji wax dëgg yàlla ñu ngi koy yàq.